taal yi am na si ñoo xam ne dañoo toj seen bopp moom Guy Marius Sagna nee na li nga xam ne moo ci gën a garaaw ñi ñu jàpp dañu leen doon wax naan leen yéen ay rebelle ngeen Guy Marius Sagna nee am na benn manifestant boo xam ne bi ñu ko jàppee xam ne mbokkum benn gendarme la kookee dañu ko bàyyi mu ñibbi Guy Marius Sagna ne ñi nga xam ne jàppoon nañu leen dóor leen ba seen bopp toj dañoo lànkoon kandaare bañ leen a facca Guy Marius Sagna nee nag lépp mi nga xam ne moo jël ay bandi ki wuyu solo leen ay tenue gendarme ñoom ñu jàpp ne lu leen neex def waaye nag bis dina ñëw ñu lijjanti ko ak ñoom yéen kaay gi di Vox Populi nee na Ousmane waa coalition Yewwi Askan Wi tey jii danañu dem ca diiwaanu Bignona gi nga xam ne fa la Abdoulaye Diatta mi ñu faatoon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin dëkk ñoom coalition Yewwi Askan Wi dañu fay dem seedi seeni mbokk ngir nag jaxal leen yéen kaay gi di Les Échos Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké mi nga xam ne moo yëkkate woon ay kàddu yu ñàkk worma teg ko ci kaw njiitu réew mi di président Macky Sall journal bi nee na danañu ko déglu ci xóotal alxamis ji nga xam ne moom la ñu dëgmal la ñu koy toppee mooy offense au chef de l'État division de fausses ñu na naan ñu lu doy li nga xam ne moo xew ca diwaanu li Linguère lu doy waar a doy waar moo fi xewaat ndax nag militant yi Benno Bokk Yaakaar ñoom nee nañu du ñu votel Benno Bokk Yaakaar ndax dañoo mer ba maara day tali ci ni nga xam ne moom lañ defee investiture yi ndax waa li Linguère nee ñu seen liste département bi dañoo jël ñaari wolof def jiital leena loolee moo méttee pël yi nga xam ne ñoo dëkk Linguère en tout cas daal réew ko di jee nee na Linguère jamono ji benn bokk yaakaar ma nga fay xara ndax nag pël yi dañoo gis ne wolof yi la ñu favoriser ndax seen liste départementale bi ñaari wolof moo fa nekk suppléant yi ay pël la ñoo journal bii da la témoin xëy duñu xibaara na ñu embargo gi nga xam ne te teggil nañ ko Mali loole leen tax na conseil national du patronat ñoom nag rafetlu nañ ko bu baax a baax ñoo ngi tàccu journal bii de la témoin nee na kay soo moytuwulee sax mën na Sénégal fecc nañu ginnaaw nag bi ñu dindee embargo bi nga xam ne moom la ñu tegoon Mali yéen kaay gii de la sa nee na patronat bu Sénégal jaajëfal nañ bu baax a baax ki nga xam ne mooy Macky Sall yéen kaay gii di wal fajree nee na nag embargo bi nga xam ne defoon nañ ko Mali Sénégal xaw na cee dee ndax nag li si Sénégal perte moo bëri lu toll ci six cent milliards yoo xam ne Sénégal pert na ko si yéen kaay gii di le vrai journal xëy di ñu xibaar naan ñu tabaski gi ren nar naa metti ba maara détail ndax ñi nga xam ne ñooy père de famille maanaam jaaxle nañu ndax li nga xam ne nag moo ko waral mooy njëg yi nga xam ne dafa yokk ba maara détaillé xar moom jamono ji kenn mënu koo laala xar yi kenn mënu koo laal ndax xar yi ci boppam dafa cher yéen kaay gi de l'observateur nee na ñi nga xam ne tamit ñooy commerçant yi maanaam commerçant yi dañu leen a bàyyi ci réew ñoom ñuy def lu leen neex bu ñu xëyee yokk ngoon ñu yokk lu leen neex yokk nag maanaam kenn contrôlé wul commerçant yi nekk ci réew mi maanaam dañoo seetaan ñi nga xam ne ñooy jëndkat yi li doy waar ci réew mi mooy li nga xam ne mooy soble seeg pomme de terre dafa yokk jamono ji yokk na ba maara détaillé yéen la ñi nga xam ne ñooy père de famille jamono ji seen bopp yee ubu dañoo jaaxle sonn nañ ba maara de tale ndax nag mbee xar maanaam gis ko jamono ji doom ju góor la yéen a kaay gi de la turbina nee na tabaski ren gii duñu ko gaaw fàtte de journal bi nee na ca diwaanu Pikine foofe nag njombe moo fa am ndax dafa am benn mécanicien boo xam ne moo fa rey benn jaaykatu xar yéen a kaay gi di réew mi ko di jee nee na escroquerie moo am ci ajug màkke gi dafa am benn agence de voyage boo xam ne dafa dëbb li njaalu toll ci fukki nit ñoo xam ne joxoon nañu ko seen xaalis da leen a encaissé kenn ku nekk quatre millions maanaam ñeenti millions yu fekk juróomi téeméeri junni la leen agent de voyage bi nag daa di dëbbu linja toll nañ ci cinquante personnes xaalis bi yëpp deux cent sept millions la da leen a nax ndax nag amul benn agrément amul autorisation di jël ay pèlerin yéen a kaay gi de enquête xëy dañu xibaar naan ñu violence bi nga xam ne moo am ci biir njàng meeg njàngale mais jamono ji jéggi na dayoo man na ñoo wax ne école bi ci boppam moo malade école bi si boppam moo moo xew ci lycée bële ca diwaanu Yoff loolee jéggi na dayoo ministre bi ñu denk njàng mu digg doomu mi nee na nag ñi nga xam ne ndaale nañu see maanaam dinañu leen teg ay daan yu méttee métti Alioune Diouf bu kisem sa nee na bu ñu wax waxantee dëgg maanaam système éducatif bi ci boppam moom la ñu war a xoolaata yéene kaay gi di réew mi nee na nag dafa am koo xam ne da doon mbubboo ne doomu Sidi Ahmed Sila atte nañu ko ca tribunal ba am na ku mu jot a dëbb li njaa lu toll ci cinq cent vingt mille francs am na keneen ku mu dëbb li njaa diwaanu Daara Jolof lu toll ci deux cent mille francs yéene kaay gi di